ëmb gérant station Total yi ñu ngi wone seeni naqar ñuy ñaan nit ñi ñu arrêté station yi ñuy dugg di taal ak di saccagé parce que nag umpale wu leen ne deux mille vingt lu ni mel daloon nañu en mars nit ñi dugg ci barab yi sàcc toj jël lu nga xamante ne moomuñu ko ci lu nga xamante ne jàppoon nañ ne maanaam ci bañ a ñàkk tayeef la parce que nag dañu wax ne sénégalais yi amaana comprendre ñu woon ñu initier campagne de communication bu nga xamante ne dañ koy teg pour que sénégalais yëpp comprendre ne lii nekk ci station yi ay doomi Sénégal ñoo ko moom. du benn station ci Sénégal bu mérité d'être attaqué. kuréel bi nag décidé na ngir traquer ñi nga xamante ne ñoo def ñaawteef yi ba noppi daal di leen jëbbal yoon. ñi jot a dugg ci station yi ba nga xamante ne jël nañ fi caméra yi identifié na dem nañ ci yoon. danañ leen jël kenn par kenn danañ leen yóbbu ci yoon ñu fay ñu nga xamante ne jot nañ ko yàq ak jot nañ ko jël. ñoom nag ñu ngi dànkaafu nguur gi. alal ji fi ne alalu ay sénégalais la on exhorte l'État à nous protéger à protéger nos ci fàttali événement mars deux mille vingt et un tax na ba gérant station yi ñu perte lu ëpp benn milliard waaye lu jëm ci événement 16 mars bi weesu jamono ji ñu ngi ci évaluation. ngir rek ñu xam ñaata lañ perte